Assalamualaikum gars yi nuyu naa leen daleen ak jaamu ci rasport 220 e Champions League bëccëg bu ñak bi tambali nañu ko tay jilé ñu gis na tay jilu lu ci juroom ñett ci ay jogante amaloon dañu ko waaye nak ñu gis ci match yu am solo yo xamanteni xewon na ci ngonu tay jilé bokk na ci ñii di AC Milan bi doon jué seen digënté ak Newcastle United mu doon match bu reuy bu neex bo xamné wala tay ji ñu bari enjoy nañ football waaye nak li nga xamné rek mo saboté match bi moy bit amu ci wala jogante gi dal amul benn bit bo xamanteni xew na ci zéro bi partout la dal di jexé ci match bobu nak ñu gis AC Milan amoon occasion yu bari ñu waroon mën a marqué waaye daal marqué wu ñu benn bit ndax kat bu ñu xoolee lu toll ci vingt cinq ci ay tir am nañu ko mën a ñaar fukki yoon ak juróom ci ay bal dóor nañu ko waaye dugaluñ ci benn waaye ñu gis ni Newcastle United ñoom juróom benn yoon képp la ñu daal di dóor ay bal mu dem ci kangu ñii di waa AC Milan kon ñii di waa AC Milan ñoo gënoon dégg nga maam jege gañe ci jogante ko waaye nag dara mujjul xew ki nga xamante mooy Rafael Leao gis ngeen ci action boobu ngeen nga xamante ni dafa dal di fexe ba di nga maam génnee défenseur yépp ci li nga xamante ne mooy biir surface kasu waaye daal ñu gis ne dafa doon def li nga xamante mooy benn tolonaat amul ballon bi muy loo xamante ñu baree bari jàpp nañ ne bokk na ko mën a dugal ngir gañ jogante googu waaye loolu mu jul xew kon zéro partout la jogante googu daal di jeexee ci bëccëg googu ba tey ñu gis ne ñii di Red Leipzig doon joué seen diggante Young Boys Young Boys bu Cheikh Niass tey ji moom sax titulaire la woon ci match boobu ñii Leipzig nag ñoo ca daal di dóor ki nga xamante ne mooy Joao Félix dafa dal di titulaire beneen yoon moom mi nga xam ne dafa marqué woon premier butam ci première titularisation bu mu amoon ci weekend bile tey ji mu titulaire njëlbeen bi yoon ci Ligue des champions ak Barcelone dal di marqué ñaari bit moom kii di Joao Félix double la amal tey ji ñaari mat dafa dal di dugal 3 bit ak équipe boobu di FC Barcelone voilà waaye nag ñu gis ki nga xamante ne mooy Robert Lewandowski dal di marqué benn bit ki nga xamante ne mooy Gavi marqué benn ak beneen boo xamante ne contre son camp la léegi nag kon ñii di waa Barcelone ñoo ci am ndam juróomi bal ci dara ci kaw ñii waa Antwerp waaye nag ñu gis ki nga xamante ne mooy Joao Félix moom gannaaw bi mu amalee ab doublé moom sax moo nekk homme match ci li nga xamante ne mooy jongante googule ba tey bu ñu xoolee yeneen jongante yi nga xamante ne xewoon na ci bokk na ci ñi di waa Lazio bi nga xam ne dañoo joué seen diggante ak de Madrid mu doon match bu doy waar boobu itam ndax kat ñi di waa Atlético ñoom ñoo njëkk a dugal Lazio waaye nag bi ñu dugalee ci 29 minutes ñu gis ne daanaka li ëpp ci match bi Lazio ñoom ñu doon attaqué di jéem a dugal waaye mënul woon sotti bi ñu demee nag ba nga xamante ne match bi daanaka jeex na mën nañu e minute ki nga xamante ne mooy gardien wu Lazio bi dal di yéeg monté ci ne moo doon góolu Lazio Lazio moo jox li nga xamante ne mooy voilà point yi di waa Lazio ndax moom marqué bit bi tax ñu égaliser un bi partout diggante Lazio ak Atlético de Madrid ba tey bu ñu woyee ci jogante yooyu ñii di waa Manchester City dañoo daal di dóor ñi nga xamante ñoo di euh, Red Star wala ñu gën ko xamee bokk ci euh, étoile rouge muy club bi nga xam ne fa la kii di euh, Chérif Ndiaye di footballé voilà Chérif Ndiaye la moom sax titulaire la woon ci jogante googu ñoom nag dañoo daal di Star maanaam étoile ruus ñoo njëkk a dugal balaa ñi nga xamante ñoo di waa Manchester City di dabe ci li nga xamante ne mooy second bi ki nga xamante ne mooy Julian Alvarez moo amal ab doublé 47e ak li nga xam ne mooy 60e minute ki nga xamante ne mooy Rodri dal di dugal beneen bit bi ci des ci 73e minute muy 3 buts à 1 pour ñi di waa Manchester City maanaam ñoom ñooy recevoir ba noppi nag ñu bëggoon leen dóor waaye nag gis nga a dugal ki jongante googule Dortmund moom Paris Saint-Germain ko dalal dal di koy dóor 2-0 moo dal di marqué penalty balaa ki nga xamante ne mooy Ashraf Hakimi di dugal beneen bit bi ci des muy ñaari bal ci dara pour ñi waa Paris Saint-Germain la boo xam ne bit yéex na ci am premier mi-temps 0 ñu ñëw ci second mi bi ñu am penalty Mbappé dal di koy dugal ci camp yi moom sax amoon na occasion ngi marqué beneen waaye gis nga mujjul sotti ñetti bal ci benn voilà 3 buts à di Porto dal di doon ñi nga xam ne ñoo di waa Shakhtar voilà mu nekkoon jongante mooy gu neex gu amoon solo ci li nga xamante ne mooy ngoonu tey jilee Feyenoord moom dafa dóor Celtic rek 2-0 la ko dal di dóor ñoom waa dégg nga maam Feyenoord bu Rotterdam foofu nga xamante ne mooy ci Hollande ñoo dal recevoir dal di dóor Celtic ñaari bal ci dara